yàlla sunu boroom li nga xam ne def na ko yàlla na ko gën a man mais duñ ko ci gërëm nag waaw Mamadou Diagne Sy Mbengue bu jëlee teraanga indil dame si bu Tiwaawan kenn du ko ci gërëm mais seen ko cee ñaanal yàlla parce que jël li nga xam ne nii war nga koo def ca fa nga ko war a defee te nga bokk fa waroo xaar ñu la fay woo alhamdulilah ba mu xaarul kenn ku ko soññ te gëw ma ni mos nañ koo soññ te gëw ma ni feek mi ngi manit duñ ko soññ tabaarakallaahu noonu la jëlee délégation bi ak taraanga jure ji nga xam ni andi na ko teg ko ci loxol suñu papa Sakho Ndiaye mu jiite délégation bi muy conseil de politique am di ko conseiller ci lu baax parce que nit boo dee ànd ak moom te mënu laa jëriñ ci li sa askan bëgg jëru ngay nekk ak moom kon alhamdulilah gàcce ngàllaama suñu papa Sakho Ndiaye ñu sant ko gërëm ko je pense que moom miin na jataay yu mel nii feggoo ak monsieur le coordinateur Ibrahima Diallo Ndiaye mi nga xam ne tamit tàyyelul benn yoon ci côté Mamadou Diagne si Mbengue ak président Papa Talla Dieye moom itam macha allah di président TBF comme ni nu ko waxee ñu ndokkeel ko bu baax nuyu président Souleymane Khoule muy kenn moom itamit ci Tiwaawan ak li ko wër ñu sant ko bu baax nuyu suñu papa Moussa Seye ci technique bi nga xam ni nekkee na ko ak Dames bu Tiwaawan béggee monsieur Habib Diop bi yor animation politique am chef de cabinet am Ali Bey mi ngi ni toog macha allah sunu yaay Awa Cissé nekk coordinatrice à travers TBF nekk jigéen ju baax jàmbaare lool ci côté Mamadou si mbeng waaye boo gisee sànq ma ni Mamadou Diagne si Mbengue gi ci course bi fexe na ba jël Tafa Mbengue rakkam def jikkoom ji ci moom melal ko ni mu ko melal ba tiwaawan fu ñu toll di ko ko jëwee muy Moustapha Mbengue di rakkam mi ngi nii toog kon mel na ni Mamadou Diagne Sy Mbengue mi ngi fi di nuyu Mbaye ak euh, Mballo Vieux Ndiaye ñoom ñëpp tabarakallahu macha allah ak monsieur Alpha mi nga xam ni moom itam ku gis ma Mamadou si mbeng gis nga ko ci côté donc ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni li nga xam ni dañu koy teg te heure bu nu ko tegee ñu ni dugguleet kon donc loolu sant yàlla la en plus kanam yin fi fekk yëpp miin nañu leen ñoom it miin nañu ci lan à travers Diagne Sy ci teraanga boo xam ne nii à chaque fois mi ngi koy jël di ko jox ñu tedd ñii ñu di ko andi te duñu ci tàyyeel te duñu ci sonn benn yoon donc dañuy ñaan yàlla dames bu Tiwaawan yal na ko yàlla dëkkee may ndam ci barke Seydina Mouhamad je pense que fu mu ko mën di am sunu ndam la ñun ñëpp du ko amee dakaar di ko fa feetoo wala mu koy amee Fatick di ko fa feetoo wala mu koy amee ci benn région wala à travers Afrique di ko fa feetoo même bu demoon ba Amérique football su gagné fii lañ koy feetoo see moo tax ma ni ko Mamadou Sy Mbengue kenn du ko gërëm ci lii mu def li ko war la mais sañ nañ ko cee ñaanal donc yal na ko yàlla aar te sàmm ko àggaleel ko yéeneem taxawu ko te mu gën koo man ci bi jaahi Seydina Mouhamad ku ne xam na ni Mamadou Diagne Sy Mbengue koñ bu mu département bi fu mu dugal otoom kenn du ni guléet ñëw na ñëwati loolu presse bi wane na ko waneeti na ko bu fekkoon wane image yi nit ci taraanga day soof nit kon ñëpp a jéppi jaañ si je pense que fu mu toll mi ngi koy def loolu yaakaar naa ñu ko présenté kenn mu nekk loo xam ne nii lu rëy la lu doy waar la. di nuyu monde sportif bi nekk fii yëpp bàyyiwuñ kenn tey nag danoo ñëw def une délégation pour indi ndimbalu le président TBF Mamadou Sy Mbengue ñi ngi ànd ak sunu président sunu grand Sakho Ndiaye El Hadj Sakho comme ni ko waxee léegi ànd ak le coordinateur de PBF muy euh, Pape Talla Dieye ànd ak euh, monsieur Alsaf Alpha Fall ànd ak président Souleymane Khoulé ànd ak son chef de cabinet Ali Bey ak coordinatrice Adja Awa Cissé ak euh, secretaire à l'animation Habib Diop sànq bi ñu toogee aussi le trésor trésorier général fekk nañu fi muy Maguette Diop bi ñëwee aussi notre frère Moustapha Mbeng fekk nañu fi Weuz moo fi doon wax si si si sànq si délégation bi la bokk Vieux aussi si délégation la bokk ak Massaw donc yéene Mamadou Sy Mbengue tey jii moo doon ñëw fekke entraînement d'Amels parce que semaine bi yëpp loolu doon waxtaanee ba mi temps wala dara mu ñëw waxtaan ak monde sportif bépp euh, indi ndimbalam yàlla def tey mu am benn empêchement boo xam ne dernière minute mu ñëw mu mu fekk ko Dakar looloo tax comme Dames day football suba mu ne amatul xaar accompagnement bi na commencé te lii commencement la te dafa bëgg accompagner Dames ba yàlla def mu monter en première division. loolu mooy yéeneem bi mu nekkee maire noonu la daan doxalee yàlla def tey jii muy président TBF yéeneem si Damels parce que Damels si la bokk équipe bam la équipe bu la donc lépp lum man dina ko def ba def lu mënul si Damels donc loolu mooy loolu mooy yéeneem incha allah lii euh, Weuz Thiam lim ne matériel bii la indi am na leneen loo xam ne incha allah dina ko tegaat si kii si wax euh, dina ko indil waat waat Damels si ay ay fan yu néew. tey jii nag indi na benn enveloppe de cinq cent mille francs en gis de participation pour si li ngeen war a def si fan yi waaw donc prévoir na benn enveloppe cinq cent mille francs teg ko si loxo président Damels pour que vraiment ñu mën a entamer préparation yi nga xam ni waa lii cinq cent mille la ak yaa nag ak cinq ballons gis naa fi aussi ay koon ak des deux tableaux ah waaw ay hmm. euh, leen wax président que yéene moom ëpp na lii pour Damels donc comme ñu ngi doog a commencé championnat bi dafa bëgg équipe am di ko accompagner ko ba mu yëg première division loolu mooy yéeneem yàlla na ko yàlla kàttanal ba mu mën ko defal ko waa Damel si barke Mohamed. xam nañ wax dëgg yàlla gérer équipe bu mel ni Damels équipe bu dëkk bi ñoom ñi fi nekk autorité yàlla dénk leen ay teraanga ñoom lañ ko ñoom lañ koy defal defal defal bi nag mooy. ñun dañuy nekk seen tànk nekk seen gët mottali yéene yi mais ñoom liñ ci bëgg benn ñun ñi représenté bureau bi ñoom ñooñu ko gën a bëgg te geste bi rek ku ko jàppee lu ndaw ñul dames lu rëy la lu rëy la dañuy ñaan yàlla yàlla gën a yokk teraanga yi ci moom yàlla yokk ndomba tànk yi ba li muy wut yàlla may ko ko ak staff bi mu àndal di profité ci occasion boobu di leen remercier parce que nit lu mu def ci lu baax bu doon moom kese kese kese mun na jafe mais am na ñu ko koy xelal ñi ko ko xelal nag tey bu ñu gisee ñi mu yónni ñun suñu xel dina dal ni ah comme xamee nañ leen ci lu baax ñu jege ku baax dinañ ko digal lu baax te loolu moo fi feeñ ndax ñi nekk ci délégation bi ñëpp du lii lañu xamante xamante nañ ci lu bari ci milieu sportif bi xamante nañ lu bëri ci milieu social bi ak ci yeneen domaine am na ñu xamante ne ci milieu éducatif bi xamante nañ ci te lu baax rek lañ leen xamee woon kon nag ñun Damels li ñuy wax rek mooy sant ak ngërëm la ñuy def ci Diagne Sy Mbengue ak staff bi ko wër yëpp di leen wax ni lii wax dëgg yàlla moom la Damels soxla te saison bi day soog a commencé attente yi bëri na te ren incha allah boo leen xoolee Damel si ni mu demee cons nu bureau bi constitué noonu la équipe bi constitué ku bëgg nag wax dara bëgg la ngay def yàlla may la ci ndam ñëwal songu Damel si jàppale ko te ku ko ci jàppale incha allah foo bëgg a yegg di fa yegg li tax loolu mooy bureau bi boo ko xoolee membre yi koo ci jël rek mi ngi dëkk ci benn quartier te kilifa la ci quartier gi ba mu dëkk. équipe bi tamit boo xoolee jour boo ci jël néew na nga dem ci quartier amul joueur bu ko représenté fii te sont des jeunes ñaamante seen seen quartier soxla na leen kon nag Tivaouane gi yëpp a leen soxla ah, ku lu ñëpp soxla nag il faut que mu am demander ay moyens tey lii ngeen def nii wane na seen njàmbaarte wane na seen baax wane na seen bëgg Tivaouane ñaan lañ am di feeñal mbégte au nom du bureau au nom du président wax dëgg yàlla kontaan lañ def xol yi fees na wax ji mënul yombee noonu mais nag dañuy bàyyi SG. est très bien représenté fii ci Damel de Tivaouane donc di leen ci sant di leen ci gërëm di remercier encore ñi nga xamante ne bii ñoo fi ñëw c'est une nouvelle équipe peut-être aménagement moo ci am mais ñu ngi leen di ñu ngi xam ni aussi que ni vraiment Damel aussi kontaan na ci yéen lii je c'est pas une grande première. Diagne si Mbengue c' est sa session magistère moom moo jël les subventions des Damel de Tivaouane jëlee ko un million yóbbu ko à deux millions ba jusqu' à présent je pense que ni noonu la continuer yemu ci je dis que chaque année même bu au delà de la subvention chaque année saa yu ñu ko sollicité muy ci je ne parle pas du du football mais ci sport yëpp parce que man dama bokk encore ci handball bi chaque fois soo ko sollicité day jël xaalisam participer ci ak ñii tamit yéen ngi noon aussi ci basket bi pour vous dire que ni moom jeunesse bi umus ñor na ko je me rappelle les années d'avant bi ñu amee ay problème projecteur pour di ko taal direct defe naa ci sous son magistère ci lañ taalee lamp yi mu génne une enveloppe de six millions vraiment fexe ba lumière yi ñëw à Tivaouane euh, gazon synthétique bi du ma ko wax sous son magistère lañ ko réaliser yàlla moo def li mu def mu ñu xam ko mais xam nañ ni moom moo ko indi ci terrain bi moo ko fi teg ba Diop si mën koo war a teg ba war koo mën a inaugurer suba donc mooy wax ni chaque année donc mu ngi jàppale Damel l'année dernière bi ngeen di def encore seen finale bi ngeen ci organiser je me rappelle c'est cinq cent mille francs plus deux jeux de maillot et des ballons et aujourd'hui encore il est revenu pour vous dire que ni vraiment am nañ sa satisfaction kontaan nañ trop te ni ngeen ko wax ni ko nous sommes derrière lui di ko ñaanal yàlla moo xam li mu bëgg yàlla defal ko aujourd'hui encore ñëwaat ngeen pour jàppale ñu te xam naa ne du yem fii comme ni ko le coordonnateur waxee parce que football bi ou bien sport bi dafa bëri ay difficultés bu ngeen ci duggul nag du ngeen ko xam mais je pense que ne ay sportifs war nañ leen dinañ leen mën a mën a mën a mën a mën a conseiller Modou Sy Mbengue di suñu papa sunu xarit rawatina commune Tivaouane ak département bi ci wàllu sport dootuñu ko présenté kenn muy alaaji Sakho Ndiaye mii ngeen xam ni yéen ñëpp xam ngeen ko tabaarakallaahu ak monsieur le coordinateur Ibrahima Diallo Ndiaye di Iba Diallo nekk jàmbaar lool ci réew meeg biti réew rawatina ci côté Mamadou si mbeng moom it mi ngi ci délégation bi accompagné ñu ci li ñuy doxal Mamadou Diagne Sy Mbengue ak président. TBF Tiwaawan ba faw di monsieur Papa Talla Dieye ñu nuyu ko moom tamit ndokkeel ko sargal ko bu baax ak monsieur Habib Diop monsieur Alpha moom itam mi ngi nii toog ak président Souleymane Khoule mi nga xam ni doo ko nuyu rek yam ci faw nga tudd njàmbaaram ak ay engagement am ci kanam Mamadou Sy Mbengue ak docteur monsieur Maguette Diop mais nga xam ni tabaarakallaahu jàmbaar la lool ci côté sport bi moom tamit Modou Gueye moom tamit di grand jour bokk ci délégation bi ñu nuyu ko ndokkeel ko sargal ko moom tamit Moustapha Mbengue moom itam mi ngi fi moom la ñuy xoolee comme Mamadou Diagne Sy Mbengue je pense que nit la koo xam ni Tiwaawan ak li ko wër yàgg nañ di partager ay teraangaam di ko séddale ci anamu social Moustapha ñi ngi lay nuyu di la ndokkeel di la siyaar bu baax di leen wax ni Mamadou Sy Mbengue tey dafa ñëw pour ñëw seet si ay jarbaatam seet si ay xaritam seet si ay doomam waaye ginnaaw njabootam googu nekk ci terrain basket bi mu boole leen ak seen yaay di kenn di Adja Awa Cissé nekk coordinatrice su président Mamadou Sy Mbengue ci côté à travers TBF mu nekk jigéen ju baax kon tey xale yi bu ngeen fi amee papat seen yaay ngi nii toog muy Adja Awa Cissé ma bëgg na ngeen tàccul ma ko bu baax a baax parce que jigéen ju baax la ñu avancer rapidement ak coach su bàyyi ko ak kàddu gi moom itam mu présenté ñi nga xam ni ñoom la fi nekkal ci wàllu sport presse bi ñi ngi leen di sargal yéen ñëpp di leen dokkeel merci beaucoup Makhtar turu président Mamadou Sy Mbengue président Tivaouane ba faw ancien maire de la commune de Tivaouane directeur général de la SNHLM mi ngi bokk ci délégation bi suñu doyen le président Ibrahima Ndiaye Sakho ngeen miin ko bu baax a baax a baax ñu ngi ànd ak son chef de cabinet monsieur Ali Bey ñu ngi ànd ak Ibrahima Ndiaye ki est coordonnateur de l'action politique de TBF ñu ngi ànd ak le président le doyen chargé de la communication monsieur Alpha ñu ngi ànd ak le président chargé de la mobilisation de la massification monsieur euh, Souleymane Khoulé ñu ngi ànd ak la brave dame Awa Cissé qui représente toutes les femmes de TBF ñu koy saluer ñu ngi ànd ak Moustapha Mbeng qui est trésorier de l'association TBF ànd ak monsieur Maguette Diop qui est aussi trésorier de euh, de de secrétariat politique ñu ànd ak notre frère dans l'organisation monsieur Modou Gueye et notre camarade Habib Diop ak certainement euh, dañ ni ku lim ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci délégation bi euh, Vieux Ndiaye en fait partie ak moom bi doon wax sànq di monsieur Ousseynou Thiam président euh, ak man man Pape Talla Dieye coordonnateur donc nu veno ici représenter le président Mamadou Sy Mbaye moom ci boppam moo bëggoon jiite délégation bi mottali si kóllëre ak Tivaouane basket club loolu bu ñu ko waxee di ngeen xam ni euh, ñëwam duni bulet coach Matar à travers toi ñu ngi réitérer au nom di président toutes nos félicitations ci succès yi ngeen xamee ni apporter ngeen ko Tivaouane vous êtes championne départementale vous êtes championne régionale et vous aspirez à la nationale suñ boroomi yàlla yàlla na yàlla teg leen ci teg ngeen teg ci seen loxo loolu bëgg naa ñëpp ñaan ko ñu ngi koy ñaan au nom du président loolu soo amee itam mu nekk lu nga xamante ni ce n'est plus votre affaire c'est c'est l'affaire de tout Tivaouane c'est ce que le président du Diagne si Mbengue a senti ba mu ni tey jii lu ngeen mën a def na ngeen ko jàpp tul le monde sait que ajjuma c'est un jour à Tivaouane mais nous avons laissé ñun ñëpp suñuy activité bàyyi suñu xadara ñëw pour accompagner leen yàlla yàlla def bis bi nga xam ne moom lañ fi ñëw muy ajjuma yàlla def ci ngënal ba li nga xamante ni moom ngeen yóotu ngeen am ko incha allah taala ñu ñëw tout simplement jàppe si leen ci li ngeen xam ni moom ngeen dese pour àgg ci ci ci ci sacre boobu ñu bëgg ak yéen donc ñu ñëw encore une fois de plus indi leen une autre contribution je dis une autre contribution parce que c'est pas la première fois mu koy def muy une enveloppe une contribution une modeste contribution de cinq cent mille francs pour vous accompagner encore une fois de plus mais je dis c'est un premier geste encore il va suivre encore incha allahu taala yeneeni geste loolu coach Matar à travers toi ñu ngi féliciter l'ensemble des jours di leen encourager di leen ñaanal succès ci li nga xamante ne moo des ci seen parcours pour bañ a guddal parce que vous êtes en entraînement bañ a deret ji ta seddaat tuuti loolu moo nekkoon xalaat yi nga xamante ni propos yi nga xamante ni président Mamadou Sy Mbengue yónni nañ ko pour ñu teg ko ci seen loxo ànd ko di leen ñaanal mais aussi di leen accompagner aussi ubbil leen ay buntam fépp fu nga xamante ni sentir ngeen ni soxla ngeen Tivaouane ba faaw soxla ngeen le président Mamadou Sy Mbengue n'hésitez pas à venir le solliciter parce que souci préoccupation mooy préoccupation waa Tiwaawoon je crois que ki qui était maire def ca lu mu war a def wàccatul nekkul nekkatul maire mais mu continuer di continuer ses gestes parce que dafa wane ni moom lam daan def ba mu nekkee maire moom la gën léegi loolu la bëgg ba léegi loolu tax vraiment ñu leen di remercier di gàttal kàddu yi foofu di ko terminer par ñaan yàlla na yàlla defal leen ngeen def champion national du Sénégal donc je vous remets l'enveloppe président au nom du président Mamadou Sibène incha allah coach jërë c'est une contribution de cinq cent mille francs voilà merci beaucoup président ñun suñ ko gisee suñu xel day dal parce que c'est pas la première fois mu ñuy dimbale ci situation yu mel nii mën naa ne moom mooy suñu premier partenaire donc toll nañ ci moment boo xam ne wax dëgg yàlla représenté tuñ suñu bopp Tivaouane la ñuy représenté wax dëgg yàlla suñu tollee ci niveau bi war a dem dans une compétition nationale te équipe yëpp du duñu xaar parce que Tivaouane ren dafa def loo xam ne ci basket bi kenn defu ko donc sur ci région bi mën naa ne coupe bi ñu fi teg yëpp saison bi benn lañ ci perte te final lañ ko perte muy finalu régional jigéen ñi donc te Sénégal ren Tivaouane rek mooy équipe boo xam ne qualifié na ñaari yoon en garçon et en fille Sénégal ba mu daj beneen équipe def ko lu dul Tivaouane donc nag ñu defee lu toll noonu waaw gis aussi tamit kilifa yi ñoo xam ne si ce sont les autorités politiques mais ce son les autorités de Tivaouane donc suñu ku ci mel ni Diagne si Mbengue su ñëwee indil ñu ndimbalam maanaam mën naa ne sax du ndimbal participation la parce que ñun ñoo nekk nous som les acteurs ci terrain bi ñoom aussi ci beneen fànn rek lu ñu mën a jàppale équipe bi te ñi ngi koy def wax dëgg yàlla Euh, bi ñu daaw gisoon nañ participation bi ñuy dem tournoi monté daaw jéeg aussi gisoon nañ participation bi ñuy dem tournoi monté mun naa ne mëninam la def donc encore une fois à travers votre personne ñu ngi koy gërëm di ko sant waaw di ko wax ni aussi gis nañ taxawaay bi yéen it gis nañ seen taxawaay vraiment mënoon ngeen rek yem ci woote ñëw mais délégation bi yëpp wane na ni donc basket bi ñor na leen ci waawoon ñor na leen donc ñu ngi leen ñuy sant encore une fois di leen gërëm pour na pas être long. li ma ci euh, wax ma ciy dolli parce que wax nañ lépp te yaakaar naa ne lépp répétition la parce que comme ni ko Vieux waxee rek Diagne Sy moom mooy suñu premier partenaire ñun at Diagne Sy moo Diagne Sy man li may wax doon li ko xam ni ñun suñ tuggee suñ xoolee ni mu sonn ci jeunesse Tivaouane daf ñuy gën a yë dañuy a yokk jom parce que gis nañ li fi nekk gis nañ jeunesse leen téye. comme ni ko waxee rek Diagne Sy nekk na fi mais jóge fi mais bu doon keneen day dem yoonam nekk ci leneen mais taxul mu bàyyi jeunesse Tivaouane bi boobu ba léegi moo ngi ciy indi ñun c'est la preuve billaay wallaay tallaay laa wax de yàlla moom ma tax may wax man bettu ma woon lii même biñ naan toog fii démb ñaan noo suba ginnaaw suba la ñuy demal loolu laa leen da xaw ma kan may jaan si moom il va venir parce que nit moom da nga li nga xam mooy jikkoom ba léegi gisuma ko benn yoon mu bàyyi gisuma ko mu reculer benn yoon soo ko envoyé message sax dina la tontu te dina la wan ne la jëriñ sa information maa ko jot ça veut dire que kooku moo ngi loolu dafa am importance vraiment mënuñu lu dul di ko rek fi mu bëgg a teg tànkam comme chaque fois li ma ko waxee rek yàlla na waaw di ñaanal aussi yéen délégation fi ñëw fii aussi di sant ñun aussi suñu dirigeant yi nga xam waaw mu metteeg mu naaj ak mu kere yëpp ñoom ñoo ngi fi waaw vraiment mënuñu lu leen gàcce ngaalaama quoi vraiment merci beaucoup